nag soo ne pett toog loolu moom ca yàlla ba ci suuf wax naa la fii ne la cent pour cent amul lii ne parfait kon tey jii xam nga soo toogee xëy na liggéeyloo gisuñu la dara ah duñ la waxal dara waaye soo yëngatu di daan sa doole te am looy yëngatu di am looy seet am looy xelaat di xelaat ah ku bokkul ak yow xelaat mën na ne jàppal bàyyil foofu rek la ñàkk gisante ñàkk euh, bokk gis-gis la du dara nag man de jàppee mu ko dara yàlla xam na ndax daf non xam nga mooy loolu la rek gise ba euh, euh, wuute xam nga di nga bokk ak nit ndey ak baay doo leen bokk gis-gis wala mu bëgg a yow fi mu nekk nga nekk fa te xëy na yow fi muy nekk doyu la yow fële moo la doy non doo leen am terrain d'entente man loolu rek laa ko jàppee. lañ naan moom dafa sonal Ousmane Sonko daf ko sonal tout le temps da koy critiquer da koy critiquer ñenn ñi sax dañuy tiit du ñàkk say mbokk yow dinañu tiit ndax état tamit ak état wu Afrique ni muy demee boo warul boo waroog ñoom gis-gis léeg mën nañ la di indil ay. mais xam nga état du gëmee yàlla moom li ko yàlla defal dañ ko ko nangu man de dama koo nangu ak lu ma àndal li ko yàlla defal dama ko nangu ndax dama xam ne moom defal ko boppam yàlla moo ko jox te yàlla mën na ko jox keneen wala yàlla jox keneen lu gën loolu xamal ma ndax président mandat la day yéex ñu renouveler la ko su ci yàlla àndee day ñëwaat te yàlla na am comprendre nit day gëm yàlla ni yàlla dogal rafet ci Ameth lii xam ne mooy dessin ah wax dëgg yàlla dañ ko koy nangul te ko yàlla lii mooy dessin xëy na ci wàllu seen liggéey bi yàlla may na ko ci xel mu dal yàlla mooy joxe danga koy xool ci yont yàlla yusuf ak na xool ko ci yeneen saaba yi ibrahima suleymaan daawda yunus yooyu yëpp danga koy xool xam nga yooyu soo ko xoolee da ngay gëm yàlla nit day gëm yàlla te man de gëm naa yàlla te amet it am na yàqim goo xam ne xam na ne moom usmaan Sonko li mu am yàlla ko ko may moom tamit lii mu am mu bari mu néew xeebu ko yàlla ko ko may nañu nangul usmaan la mu am te ñu rafetal ko nañ ko rafetal ndax ëllëg usmaan mën na ko soxla am déet ndax politique mbooloo la xew moom mën na ko soxla ndax euh, liggéeyam keneen mën na soxla Ousmane wala soxla keneen nañu rafetal rek ndax ay doomu aadama lañu te kenn xamul ëllëg ku xamoon ëllëg mën a seet nañ koy doxale mën de loolu laa gëm ñun amuñu noonu ku ko xamit nañu ko nëbb ñun amuñu noonu gisuñu ko de am na nag xëy na waaye ñun gisuñu ko yàlla nañu yàlla jàppale euh, lii nag yàlla nañu yàlla jàppale jafe-jafe yi mu nekk ci kàntanu suñu borom yàlla na ko yàlla teggi te bañ koo teg keneen ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gërëm naa leen sant naa leen di ñaanal sama doom nag lu manul ñàkk nag doo ko amee dangay sant yàlla rek duñu xànc kenn duñu xas kenn te it li ma lay laaj tamit. nga ma ma profité ci dama ciy sant yàlla nag ndax dama ne woon damay dem ci rajo jàkk ji mbiru amet yi ku koy dimbali bu ko dimbali ci xuloo ak xeex maa ngi koy ñaan ñëpp nag Sébikotane Dakar ak fu waay nekk ci jàppo diaspora bi ñëpp koy dimbali rek bu ko dimbali ci xeex ak xuloo ak yàkkante ñun xamuñu lu bon xamuñu toj xamuñu sànni xamuñu yàq man politique naa ba bëgg retraité ndax ñoom te moom dafa mas a bañ politique ndax moom doo waxee mu ne injuste lay bañ masu koo dugg masu koo dund li muy wax nag dañuy naan kenn dafa nekk ci ginnaawam <laughs> man yaay man yaayam billaahi wallaahi taalaahi duma ko nangu am naa fulla ju toll ni lu may wax sama conscience tranquille laa koy wax kenn duma ko dugal te def naa ci samay doom yoo xam ne lépp lu ñuy def seen conscience tranquille lañ koy defee seen teelu xay kenn du leen dugal wala di leen pousser wala demal defal kii lu bon wala nangam ak nangam déedéet ñun amuñu njëkk njëkk wallahi azim amuñu ko pour jënd ma wala lu fees suñu bët lu daan suñu doole nit amu ko te kooku juddoogu naa ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp amet kenn dugalu ko. ñi wax naan dafa ñu nekk si ginnaaw di ko financé di ko waxloo di ko dalal ci kaw Sonko. waaye xanaa dañ ma xamul wala xamuñu woon baayam wala xamuñu famiyam déggoo li ma wax dama ne ne amuñu amuñu njëkk la dabaax Malick doon wax nee na ngor dina jafe-jafe goo xam ne ba doo amee sa ngor na ko téye ndax doo gis koo ko jaayanteel ñun duñu jaay suñu ngor. duñu jaay suñu du duñu jaay suñu personnalité lu ñu am doyloo nañ ko suñu mënee dimbali ku ñu tane ñu dimbali na ku ñu mën a jàppale jàppale ko jooy yi ñu doon wax wëre ko àddina dañ ciy sant yàlla rek ndax doo defee choc doomu aadama nga teg ko mettit bi rien que moom moo dal ci moo dal ci moom beaucoup daal xale bi rek dal dal ci kawam. scooter bi moo dal ci kawam ndax moom da doon moytu camion xam nga ku ndogal yàlla la waaye doomu aadama la ku mu doon yow loolu mënoo kaa ba pare sa xol du tooy ñaata émission la def te jooyu dem na kii loolu am na ñu ñu toog ba mu yàgg ndekete lële. waxante nañ ko man dafa ma ko nëbba ndax parce que am na yenn yoo xam ne dama ko koy tere nee na moom yërmande kooku mu doon defal émission bi moo tax mu nëbb ma ko ba dem ci ndax su ma ko yëgoon dama koy tere ndax parce que dama ko naan ah, sa sa xol metti na naxar ak lii mënul ànd xam nga mais daf ma ko nëbb ndax nee na ma yaay su ma la ko waxoon ba ma ko gisee rek dama ko woo mun ma su ma la ko waxoon dag may tere ndax bari na émission yuñ koy jox su ma ko waxee su ma xoolee circonstance bi dama ko naan non waaw ndax lu mën a nekk rek xel xalaat su ma waxoon loolu dama ko naan déedéet ndax doomu jàmbur ji ak moom yërmande ji muy am ci nit tey fekk yëfu jàmbur sax mu jooj ndax xolam moo mel noonu ci yërmandeem yërmande jooju mu gis kii mu gaañu ñu defar ko mu def ko traque yaa ngi dégg mu dem dem def émission am keneen koo xam ne tamit da ko dogale nekk doo mu dimbaliwu tonton sama jàng day yàqu mu dimbali ko yooyu yëpp la tase mu def ko émission mais du du émission bi moo ko ja jooyal du leneen moo ko jooyal ku xam amet <laughs> du loolu moo ko jooyloo mais yii mu tracé ci kanamam ak li mu am ci ma yërmande moo ko dugal muy jooy ñi xamul nag traduire nañ ko traduire du ma bàkkaar ndax dama préparer pour juma <laughs> euh, euh, wax dëgg yàlla duma ci wax ci loolu.